Mounoumbe ndax yow laa la koor gi dalaa jàpp. mooy koor gi dafa métti nga nopp sama nopp yi naa Mounoumbe Mounoumbe rek. Mounoumbe nag yow bàyyi fen benn yoon rek laa la wax Mounoumbe. waaw yow sànq ba léegi yaa ngi fi nekk naa ay Mounoumbe Mounoumbe rek ñaata ñu laa la woo. waaye sànq ba léegi yaa ngi fi nekk di ma woo te doon damaa woor bu ma sonal waaye da nga bëri wax trop. Mounoumbe day bàyyi xel ni man sa mag laa da nga bàyyi xel loolu loolu loolu da nga koy fàtte. waaw man tamit sa sa rak laa. waaw waaw da nga bàyyi xel. et puis et puis koor gi nan lay demee ci gàllane bi. kon koor gi. waaw ah ñu woor ñun ñëpp wooroon ñëppay woorandoo waaw waaw mais nan la ñuy nan la ñuy nan la ñuy tëralee kër gi. nan lañ dul tëralee kër gi. non kër gi dafa war a am ay règlement ci kool gi ana ñii. ñan su suñu waa suñu sama nijaay. waaw mu ci biir. woo ko moom jabaram ma woo mu ñëw fii. mais man maa leew wala yaa leew lu tax nga naan moom damaa leew. waaw yow sama nijaay di mu kalaf mu nga naan ko man maa la koy woon mu ñëw di la wuyu. da ngaa fàtte kër gi ñun ñoo ko moom. waaw ñun ñoo ko moom kay. waaw. loo tax ba ma sa kër yaay borom kër gi. Hmm. kon ñun ñooy ñun ñooy borom kër gi. waaw loolu ah, ko. eh ka kaay leen wuyu kaay leen wuyu ñaan dof ci kër gi ngi ni te seen day daa dee ba ma ak ñoom seen bàyyi dee. ah samay jarbaat la ñu mënuma leen a génn. nooy def. eh eh yow ma la nga bàyyi di ma wax fiche. Eh, man sa nijaay laa maag sa baay bokk sa ndey bokk ndey ak baay. waaw yaa sama bokk ndey ak day dara fiche day dara. Eh, eh, man maay toog ci suuf man maay toog ci suuf. waaw. yàlla ba indi leen rek leen woo di leen jox wala mu wax leen salaat yi. kël gi organiser ko. waaw. mu am ay règlement yu muy doxee. foog waaw. man man dama wool. lu tax. man daf laa. ah dof nga doo woor. maa ngi lay déglu. su ko defee. léegi. dama bëgg ndokk yi ndokk yi. Hmm. muy teel a wuñ ne. bu ñu waxee alaamu woon ak sëmb xam nga lan la nga waxee noonu xam nga ko ñu indi tànnal may. bu ñu tollee ñu ñu fonde bi. ñu jël fonde ñu dóol fonde man man mënumee fonde tegerega lay dool man sama fonde diwti lay am. yéen bu la neex ngeen def soow. mbulu mi defal mënumee ñebe bu mu am mayonnaise man ngeen defal petit foie ak mayonnaise ak ak kas ak kas kafe meew. Ah. yéen lu leen neex ngeen diw affaire nag ngeen bàyyi ay ay ay ci kanam yooyu. ngeen indi ceeb bi. waaw waaw. bi nam di tooy xepp dañuy yàq di mani. xool xool xool amaat na amaat sauce ay sauce ay ornebulet yooyu yëpp nag am na ceeb bi am loolu. yow laa yokkal yow. ceeb bi nag ceeb bi soo umpaañ. ceeb bi nag tooy. soo umpaañ mais. waaw mu mm. tooy xepp dégg nga daxaal ji fexeel ba sànni ci suukal <laughs> la am. waaw man damay bëgg a jommi wala la. déedéet ko léegi loolu laa loolu laa leen pour ñu organiser koor léegi euh, euh, yow nga ne dof nga. waaw léegi dof lu muy ndogoo. ku wóorul lu muy ndogoo. wóoroo di ndogu benn ñaar yow joxe dépense bi. joxewu ma ka. lu tax. kër gi maa xamoo suñ suñ kër la. waaw wala dëgg kër gi ñoo moom suñu kër papa la. suñu kër papa la yow dañ laa héberger rek. bu fàtte loolu. waaw yow bu fekkoon da ngaa demoon dëkk feneen da ngay fay luyaas. da ngay fay luyaas fay ndox fay courant. en ah, xaalis luyaas yi. waaw ah. jox ko dépense. jox ko dépense dundal. voilà waaw waaw daal dëkk waaye yow kii bi. li ngeen fi wax ëpp na kilo. li ñu def fu ñu koy jëlee jamono dafa metti. ma yéen wax dëgg yàlla. non non kii moo ko joxe. dafa di moom moo joxe dépense. xoolal nga góorgóorlu nag dégg nga góorgóorlu góorgóorlu baax parce que nga gën a organiser waaw ñaw dégg ngeen dëgg de. waaw moom dégg ngeen dëgg moom ñaw. dégg ngeen dëgg tey de ñaw. man yaay li mu wax dëgg la de. moom lan la wax. waaw parce que mooy kilifa gi te kilifa kilifa lu tudd fa la sant li mu wax nañ topp ci ginnaaw jabalam lu mu wax ñu ne waa. lan ñoo suñu ay règlement ba moom mu ne dina ko respecté. lan yow yaa fi toog léegi wax loolu. yaa ko wax nga ni nga ni ñun ñoo moom kër gi nañ joxe ay ci règlement na joxe dépense na def nii ak nii da togg ceeb bu neex ba moom dina ko respecté par force nga ñëw financé sama nijaay nee na lii sama nijaay nee na laa. mu numeloo fa laa ko waxee. yow saa yoo xëyee sa daf gi day gën a yokku rek. Eh. dof nga rek man numeloo xam nga dama koy dama ko bañ man bëgguma woon sax nga ay mag yu dof rek eh, xool ma. man tam bëgguma woon nga nekk lakk. loo ma ma delloo la. saa yoo xëyee gi day gën a yokk rek. ay doo bëgg de fii man tax ma nuyoo li ma bañ rek loolu la may wax non di